bisimila daal leen ak jàmm ci chaîne bi seen bopp Macky Sall bis bu ñibbisee Ndakaaru danañu ko teg loxo ngir crime contre l'humanité docteur Mbaye Cissé moom juriste bi mu ne gisuma luy tee ñu teg loxo Macky Sall bis bu tegee tànk Sénégal du loi d'amnistie bi du it statut ancien président ndax moom Macky Sall docteur Mbaye Cissé nee mënta rëcc ci justice gannaaw ñaawteef yi mu def jamono ji mu nekkee ci nguur gi Walf Quotidien mel ni a nguuram ñi ngi toog di ko xaal ñi nga mënta bokk ci élection législative yi Vox Populi ne Macky Karim kay ñooy jéem a galgal Ousmane Sonko saisir booba bañ jàll waaye itam liste Pastef bi ci boppam bañ jàll journal bi ne tëdd liste yooya inéligibilité Ousmane Sonko Sonko lañ tegaat ci taabal ji génneewaat coowal contumace géeg daan gi ko daanoon ci mbiram mambay ña ne Ousmane Sonko mënta jariñu ci loi d'amnistie bi point actu ne conseil bi ne Karim bi ne déposé nañu ko démb ca conseil constitutionnel bu weesoo Ousmane Sonko it boobalib yéenekaay gis Barthélémy Dias ca sursis waaye takk wàllu moom réew mi quotidien Ousmane Sonko ci boppam lañ bëgg daaneel bés bi le jour ci recours booba ñeel candidature Ousmane Ousmane Sonko la mu ca gis mooy Macky Sall la song ouvre les hostilités la booba lépp journal wax dinu waxit ci liste Pastef bi ñu ñi ci investir ne revanche tolaar yi la maanaam ñooñ tëjoon kaso ñoo jël seen ca liste ba Niki Mouramani Kaba Diakité ñooña nekkoon diggante force spéciale ak commando bu Pastef yéeni kaa bi ne ñoom ñépp Ousmane Sonko investir na leen ci listu Pastef bi war dem ci élection législative yi Pastef mooma tribune gis ne opposition jàmm ak njëriñ ne jiite yooye lépp liste ak Ousmane Sonko sax ñoo nekk ci xët gu njëkku enquête journal ba tuddee leen les forces en présence doole yi teew war a jëm ci élection législative yi nu dëgmal Le Soleil ne moom kay ay xeex la yu nuy séentu c'est bataille qui s'annonce yéene kaa bi it ñooñu la fësal ci xëtam gu njëkk muy Ousmane Sonko Macky Sall Barthélemy Diaz ak Amadou Ba ñi la ngoo woon démb te nar a jàkkaarloo tey xeex Le Soleil ne Amadou Ba la ak Macky Sall Ousmane Sonko Barthélemy Diaz journal bi ne beneen xeex la Abbas Fall moo war a janoog Babacar Mbengue ngir teg loxo Ndakaaru yéene kaa bi ne ñeen fukki liste ak benn la DG yi e validé démb juróom-ñett la gàntal ñooña ñu gàntal yéenekaay bi ne am nañu benn fan ngir def seen recours Sud Quotidien ne juróom-ñett ya ñu rejeté juróom benn ya dañu leen a d'office maanaam mënuñoo bokk ña des mën nañoo def recours am nañu benn fan yéenekaay bi jàpp ca loola ne joxe na verdictam ñeel liste yi war a bokk ci élection législative anticipée yu 17 novembre élection yooye le témoin ne guerre des trois ba dana ca am a dox diggante Ousmane Sonko Macky Sall ak xeex la war a xeex digganteem ak Amadou Ba ba ca topp di revanche bi mu war a jël ci Jomaay ak Sonko waaye itam indi ay leeral ci déggoo bi nuy njort ne am na seen ba nu génnee kaso muy entente secrète yéene kaay bi ne moom la ñu investiroon tête ca Thiès waaye mujjee naa rocceeku ba set topp ci ginnaaw Macky ca point actu moom Abdoulaye Dieye mi fi jiite woon AIBD ma ngay leeral lu waral démission ca coalition jàmm njëriñ bu Amadou Ba mu ne moom ni mu luwaayaalee ci Macky mënta janoog liste boo xam ne Macky Sall la ko jiite lii quotidien Amadou Ba dem topp ci ginnaaw Macky Sall bokk na ca la ko nakkat yéenekaay bi ne mooy dogal ba coalition Amadou Ba boobu jël dem ak cëggalu guyam ca Thiès génn ci intercoalition bañ naroon a nas mu ni moom nag Abdoulaye Dièye du samp ndëndam janook Macky Sall ci élection législative yi nu jëm xelam xalaatu ko Diomaye ak Sonko nag bu dee danoo xalaat ne mën nanoo teg pression opposition bi ba divertir leen Cheikh Issa Sall maire Mbour ca boobu lépp gi maanaam jaay génn ci luñ tegut fenn ñaawlu it li ñuy def yooye ci jamonoy élection yi élection yooye sax le témoin ñuy xamal ne docteur Oumar Cissé la muy sàkku mooy ñu woteel Pastef ca Tëngéej journal bi ne man ko teg ci cohérence ak éthique politique gannaaw ba mu gàntalee investiture yi yéenu ko bëggoon a def ci coalition opposition bi topp na ci ginnaaw Ousmane Sonko ñemu àndal moom Ousmane Sonko le quotidien gis ne ay nitam ay fidalam la imposé ci liste Pastef bu nara politique la bu ñu politiser lool sax yéene kaa a yépp nga ca liste ya liste yoo yàgg nañu ko tëggee yët laas ne daanaka parti politique yépp la yëngal yéene cabinet fu ca tàkkut ma ngay saxaar ña defoon agression ba bëccëgu ndar kàmm ca aslem moom libération ngi mel ni ku naan tàkk nañu jëppe ndax juróom benneelu nit ca booba leb gang yéene cabinet teg nañu ko loxo appel moom jamono jooja di sàkku ci ministre de la communication mu teg ci suuf commission bi mu nar a taxawal mu war a valider déclaration entreprise de presse yu sénégal rentrée scolaire bi ci sénégal ministre de l'éducation moustapha guirassy ca vox populi naan jaar na yoon acteur yépp jàpp nañu ci lu soxal muuraay gi ci école yeeg arrêté ba ñu ca jël ngir fexe règlement intérieur yi méngoo constitution bu Sénégal Moustapha Guirassy ca bés bi le naan du pour créer ay problème waaye pour indi dal la ci réew mi réew mi quotidien waxtu woow naan ñu école ubbi na démb waaye école banlieue yi mel na ni ubbeeguñu ndax ubbi tey gi jàng tey mënta sotti la ko waral yéene kaay baa nga nu koy wax bokk na ci mbënd meeg yeneen di jafe-jafe waxtu woowa ca l'observateur Sékou Fantamadi Diaité secrétaire te loola dafa génn compagnie yu bari itam nee mënatunoo approvisionné correctement yooyu les stations maanaam mënatunoo indi carburant bu doy mafia wu carburant bi am sax yéeni kaay bi ne doyen des juges séddale bu njëkk bu sunu gaynde yeeg seen entraîneur bu bees bi wuutu Aliou Cissé di Pape Thiaw Kalidou Koulibaly ca boobale bi yéeni kaay di nettali waxtaanam ak Aliou Cissé gannaaw ba nu ko teggee ci bopp équipe nationale booba ca laas moom Kalidou Koulibaly mu naan njukkal ñun foofa la ñuy taxaw ñaana leen kenn dal ak jàmm dig daje ëllëg incha allah